loolu acculé bi mënuma ci sori trop parce que ñol way mom la wax mom la wax rencontre rencontré nañ akili ñun au sein de Yanama euh, ñoo lànk aar lu ñu bokk rencontré nañ Sutelec rencontré nañ Matar Cissé il nous manque de rencontrer aujourd'hui Bitey mi nga xam moy benen parti bi ñu wara rencontrer rencontrer guñu buñu paré nak ñun dañ jëbbal ñun suñu décision ak suñu xalaat ci mbir moomee mais li mu li président jël dogal né dañuy renégocier contrat bañuñu ko dàquñu ko quand c'est l'intérêt du Sénégal D'accord ko mais li ñu ci xaw tey parce que c'est des Sénégalais il faut qu'on renégocie le contrat ah contrat au Eiffage contrat au Auchan contrat au Total Shell Elf Metal, Bolloré ñooñu an seen contrat Frank Timis ak rakkam bi ci nekk nag ana contrat yoy yooyu duñ ko renégocier loolu lañ wax dañ ne Macky Sall bu tambalé ci contrat yoy renégocier ko ñep nañu renégocier contrat yep kon ñi ngi xaar mu wat tous ces contrats là renégocier ko bu deful loolu nous ñu xam que kon Macky Sall en réalité c'est le sous-préfet de la France et le Sénégal est une sous-préfecture de la France intérêt France mon contact tax parce que bu fekkente ne si c'est des sénégalais nga renégocier bu dee ay tubaab la nga bàyyi mu jàll kon kan intérêt kan ngay défendre président wu ban réew nga wala représentant wu ban réew nga donc nous sommes toujours une colonie et le Sénégal reste une sous-préfecture.